Tcharoy Info TV, l'information qui vient de la communauté. Tcharoy Info TV, l'information qui vient de la communauté. L'information qui vient de la communauté. Tcharoy Info TV. waaw ah, li tax ñu taxawal sax ça, suñu suuf aar littoral parce que organisation yi ci nekk kuréel yi ci nekk yàggaawoo yi di ça saaxi c'est si di ko séddoo seen biir mu mel ni kon bokk tey tong-tong la ñuy assisté Sénégal parce que lépp lu jëm ci suuf rawatina suuf soo xam ne dafa nekk ci peggu géej dafa mel ni tey ñi nga xam ne ñoo ñuy jiitee ñoom dañu yaakaar ñoom rek ñoo ko yeeyoo ñoom lu leen neex ñu def ci te ñun baadoola yi daal amuñu ci benn benn droit donc ñu ne nañu taxaw gën a defaru gën a structuré taxawal benn kuréel bu tudd aar suñu suuf aar suñu léegi ànd di xeex ndax ñu mën a bàyyi suuf si ñuy saax saaxee bàyyi pegg géej gi nga xamante ne ñu ngi koy saax saaxee parce que ñëpp ci bokk yam sénégalais yëpp ci am droit ku nekk am nga droit li la yàlla may mooy nature ñu may nii ñu mën ci profité ba nga xamante ne indi problème kenn waaw toujours rek parce que dañuy dégg jox nañu du lu ñuy dégg sax lu am na jox nañ 4 virgule 2 hectares fële ay magistrats ñu dégg ni waa impôt et domaine seen syndicat ñu ngi laaj 10 à 20 hectares ñu dégg ni ah, am na ay sociétés yoo xamante ne na nañ leen ay assiettes foncières toujours ci bande des alors dégg ni suñu maire yi aussi ñi nga xam ne ñëpp dañu nekk ci peggu géej gi ku ci nekk am nga projet d'aménagement d'habitation say conseillers boobu nga bëgg a daggal ci nekk suuf loolu yëpp ñuy dégg di dee dégg mais mosuñu ci dégg wàllu askan bi saxal filaawo yi di reboiser fii ci année 40 yi jëm année 50 ak yooyu ñoom ñoo ci participé woon am na ñoo xam ne ñu ngi ba léegi ñu ne alors est-ce que dafa am ñaari citoyen Sénégal ñoo xamante ne dafa am droit bu ñu am ci kaw ñëpp ak ñoo xamante ne comme ay baadoo lañ ay néew doole lañ amuñu yenn droit yi ñu ne non loolu amul ci teg Sénégal yëpp parce que ñëpp a yem ci accès à la terre rawatina ku nekk suuf si nga dëkk kenn gën la fa yeeyoo léegi ñu ne ñun nañu taxaw dénoncer loolu dénoncer loolu di woox président de la république moom miy déclassé forêt bi bande filao yi parce que forêt classée na arrêté déclassement yi ensuite mu def audit foncière u bande bi audit foncière maanaam ñu xool kan moo fa nekk régulièrement kan moo fa nekk ci yoon an kan moo fa nekkul ci yoon maanaam kan moo fa am dara suuf teg mu tegu ci yoon kan moo fa am suuf kan moo fa nekk te tegu ci yoon bu ñu defee loolu ba pare ñu ne impôt et domaine nga xamante ne ñoom kenn mënul tudd suuf Sénégal te tuddoo leen ñu xool doxalin boobu est-ce que tey jotul waa impôt nekkee benn boor waa domaine nekkee beneen boor domaine ñu jëm ko def de telle sorte lépp li ñuy def dina tegu ci lu leer ba xam ne suuf Sénégal ñu ko mën a saa saaxee beneen bi ñu ne euh, bu fekkee dañuy def ay aménagement mooy commune yi nga xam ne koo ci wax mu ne am naa plan d' mais dañ leen wax ni boo leen di wax loo xam ne jariñu askan wi ngeen jàpp jariñu askan wi sàqu leen baatu askan wi parce que askan wi am na ñu leen fi toogal def leen ay consultation citoyenne woo leen ñi ñi ngeen toog waxtaan ak ñoom parce que ñi ñi mënoo leen décider pour ñoom sans pour autant ngeen boole leen ci diisoo bi ci waxtaan bi loolu day gën a yombal rek li nga leen bëgg a defal maintenant boo leen xëyee rek ne lii la leen bëgg a def seen gënee la te boole woo leen ñu ci day fekk ni ñun dañuy jàpp ni da ngeen ñu bëgg a nax kase donc loolu mooy loolu mooy et dañuy wax concept boo xamante ne mooy Sénégal foofu ñu jéem a liggéey ci ay concept mel ni démocratie foncière lu ñu wax démocratie foncière mooy suuf si ñëpp a ci bokk yem bu benn pri élite privilégié jàpp rek ni ñoom comme ñoom ci administration yi fu ñu féetee daal am na euh, ay ay bànqaas yoo xam ne am na ay possibilités yoo xam ne foofu may na leen ko ñu jàpp ni lu leen neex def noonu tey dañu dépassé loolu dañu ne ku nekk ñëpp a bokk yem ci suuf si dañu yemale sénégalais yëpp de telle njëriñ bi leen suuf si amal li mu amal ma sàmb na ko amal ma demb lii mbootaay bi ñëpp la ñëpp ñoo xamante citoyen ak mouvance citoyenne la képp koo xamante ne défendre li cause yi ah, kii yitteel na la yaa ngi ci biir mbootaay bi et puis yemul géejawaay dafa jógee géejawaay dem Malika yëmbal Tiwaawan pël ba Lumpul même waa Dakar li ñuy xeex ñun dañ jàpp ni loolu même réalité bi la parce que li ñuy xew moo xew fépp quoi donc mbootaay bi ñëpp la c'est un mouvement citoyen képp ku jàpp ni ñun li ñuy xeex ki nga sa bopp rek certes ñu policier nga certes ñu société civile la certes ñu citoyen simple li gën a am importance mooy li ñuy xeex loolu la ñuy xeex xeexuñu leneen ci loolu la ñuy nekk quoi ku ñu fekk si tamit ci li ñu li ñu fekk ci loolu la ñuy des quoi doo ñu yóbbu feneen maintenant quant à casquette bi nga am casquette bee nga am loolu vraiment importé wul parce que ñëpp ay citoyen lañ quoi au-delà des casquettes. Caroy Info TV, l'information qui vient de la communauté. Caroy Info TV, l'information qui vient de la communauté. L'information qui vient de la communauté, Tiaroy Info TV.